bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokki Laayen TV TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko ñaan suñu bopp di ñaan bor bi subhaanahu wa taala defal leen tawfiq te defal na ko kon suñu émission bi ci kër gi te ñu ci dalal soxna maam jaari njaay soxna maam jaari njaay de daa mel ne que jot ko gis ci kër gi man naa dafa defoon paar xam kon soxna maam jaara asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu Cheikh Sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa Laayen TV TV ak Laayen TV ci islam. waaye di leen ñaanal buur bi subhaanahu wa taala mu sàmm leen te sàmm leen seen njaboot barkeel seen dund musal leen ci seytaane musal leen ci musiba ak balaa ci kàttanam ak mbaaxam di ñaan buur bi subhaanahu wa taala mu defal ñu jàmm ak sutura waaye di ko ñaan it mu yërëmal ñu waaye doole ñu jiitu ca barzak xaare leen aljanna firdawsi oyofal suuf si seen kaw di ñaanal ñi nga xam ne dañoo tawat tëdd ci lalu hôpital yi wala sax feebar bi ñu ngi koy doxantoo ñu leen di ñaanal buur bi subxanahu mu saafara leen bu ñu delluwaat ci seeni yitte macha allah Cheikh Serigne tey nag ñu bëgg a waxtaanee mbir yi nga xam ne dama naan lëj-lëju jamono ndax fi mu toll xoolee situation bi léegi ak suñu dëkk bi ni ñuy dundee dafay nekk mbir mu jaxasoo hmm. da gis ne yar amatul ci suñu biir yar amatul ci xale yi amatul ci mag ñi yar googu nag man dama jàpp ne li ko causé. dafay delluwaat ci parents yi sut yow góor ndax borom bi subxanahu wa daf la dénk ay njaboot wax la ne la it bis dina ñëw ma laaj la njaboot gi ma la dénk nan nga leen sàmmee woon sàmm boobu nag nga rate ko nga xëy mën a xool say njaboot xooloo seen lekk xooloo seen naan xooloo seen sol amaana jàng sax dangay bàyyeeg seen yaay moom moo leen di toppatoo lu ñuy jàng. nga daw sa responsabilité yëpp ci biir kër hmm. imaginer li gën a metti nga xëy won sa soxna ginnaaw hmm. koo xam ne amaana dooleem jotewul nga xëy ne ko lijjanti dépense hmm. te pourtant xëyul gontul xam nga loolu te wóor na la ne boo làmboon sa poste génnee fa dépense boo ko jox mu togg ko wóor na la ne boo génnee li nga mën a lijjanti soxna si mënu koo lijjanti waaye nga bàyyi koog loolu yan ko yan boo xam ne diis na ci moom ba subhanallah dafay dem ba dootul xalaatati sax moom nan la war a mën a téye ay njabootam fi mu toll ni programme yëpp dafay nekk lan laa leen di jox ñu lekk lan laa leen di jox ñu naan lan laa leen war a jox ñu sol nan laa def bu yóbbu leen ñu dem jàngi loolu yëpp nekk ay mbir yoo xamante ne góor la war yow góor boroom subhaanahu wa taala bis dina ñëw mu laaj la njaboot gi ma la dénkoon kon loolu dafa jar a bàyyi xel lool sax te xam ne loo sonn ci say njaboot sa bopp nga ko sonnal maanaam njiw la boo xamante ne ci sa bopp lay delluwaat donte yaa jàpp nga ne li ngay def ci ñoom nga koy def mais ci sa bopp lay delluwaat ndax duñu laaj mukk doom yi nan ngeen sàmmee woon seen baay bu ñuy laaj dañuy laaj waa yow waajur bi nan nga sàmmee woon njaboot gi mën a dénkoon hmm. kon jar na bàyyi xel imaginer nag nga xëy mu feebar sa soxna boobu feebar nga bàyyi ko ci kër gi dem xëy dem amoo benn yërmande ci moom xooloo ndax metitam fu mu toll hmm. xooloo ndax ku war a dem hôpital la xooloo ndax kuñ war a faj la xooloo ndax ku war a naan garab la loolu nga koy rombee noonu muy dem di ñëw doom yi tey seen yaram daw na ci loolu hmm. waaye jàppal nañ yow papa jàppal nañ la een boo xamante ne subhanallah xam fu mu boobu xale yooyu di ko màggaale yaay taratu leen a yar ndax bopp bi fees na ndax xëy war a dem lijjanti ji dépense dafa metti hmm. borom bi subhanahu wa taala tegu ko jigéen góor la ko teg ndax xam na coono ba ca nekk hmm. nga bàyyi ne nag nga bàyyi seen yaay loolu doom yi xëy di jàkkaarloog loolu hmm. yërmande bi ñuy am ci yaay xëy war dem lijjanti waaye yaay moom war a lijjanti tey mu ngi feebar hmm. nga war a xëy di romb xale yooyu xale yooyu tey bu ñu màggee lan la ñuy def ci société mbir la bu rëy rëy rëy hmm. kon góor ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax ba tey li nga xam ne mën na indi cause ñàkk am yar jigéen bi nga xam ne boroom këram da koo bàyyi ci kër gi dem daani dooleem pour rek lu mu dundalee ay njabootam mais loolu mu lay indil xeeb nga ko xeeb gu doy ni danga ko ko fii bàyyil dem uti loo amal sa bopp te pourtant sa devoir ci yow ci sëy bi mooy nga toog ci kër gi yar njaboot gi xool leen ku jàng ba wàcc nga gëstu li muy jàng lan la koo gis naka sa dul noonu nga jubbanti tegaat ci yoon yar boobu nag nga jël teg sa ginnaaw gis dina ñëw yàlla borom subhaanahu wa taala la koy laaj kon loolu it ku jara bàyyi xel la ndax arab dafay wax al ummul madrasa yaay moom mooy yar yaay boobu nag tey huit nga génn sa kër balaa ngay génnaat vingt deux balaa ngay dugg si waat boo egsee taloo njaboot taloo papa li ngay tal muy tëdd dallu ndax journée bi yëpp danga koy yendoo dañ dañ kon kooku mënul yar njabootam tey njaboot yooyu buñ génnee lan la ñuy def ci mbedd bi des fois ngay dégg ñu naan boo defaree après mbedd mi génn ñu jël seen wàll déedéet yar bi nga xam ne moo war ci xale bi bu ci amee wallaahi bu génnee mbedd mi mënul ko dara lu mu yàgg yàgg ci mbedd mi dafay dellu siwaat ak jikko yi nga def ci moom ndax yar bi moo am solo hmm. te xale danga koy yar depuis mu nekk ndaw imaginer ñi ngay dem dénkaane fa leen di dénk xamoo lan la ñuy dund hmm. journée bi suba ba ngoon jot ñoom la ñuy nekkal ndax julli nañ danga nga war leen a jàngal loolu ndax yow bi nga leen bàyyee ci koor gi ndax est ce que woor nañ hmm. loolu yow yaay da ko war a gëstu ci say njaboot mais amatoo jot boobu ndax boo xëyee yaa ngi dem uti ki nga xamante ne nag xëy na néew doole moo tax mu bëgg a jàppale boroom këram ba tey it kooku war na mën a teg programme boo xam ne heure sàngam laay xëy waaye heure sàngam dinaa wàcc bu ma wàccee kenn ku nekk ci yéen li nga def dinaa ko xam ndax am na loo xam ne loo uti uti uti lii moo am ëpp solo ndax tey li ngay dem uti boo toogee tey bu njaboot gi màggee indil la ko fekk yaroon nga leen yar bu baax mais problème bi mooy bu fekkente ne dafoo ci ñoom benn yar ba màgg nga bëgg nga bëgg ci ñoom dafay jafe te yenent bi sallallahu alayhi wa dafay wax ne waajur bi mënul defal doomam benn teraanga lu dul yar hmm. yar bi ngay def ci moom moo ëpp solo alal joo mën ci am yar bee ko ëpp solo kon yar boobu tamit nañ koy bàyyi xel bu baax a baax imagineel doom bi nga xam ne nekk nga moom xamoo ci moom dara mu dem ba màgg boo ma nee xamoo ci moom dara maanaam jur nga ko yaa ngi yendoog moom di fanaanoog moom mais xamoo sax ay jikkoom hmm. ndax jéemoo def ci moom benn jikko xale boobu mooy xëy sax ween nekk jànk rek ñu ne ay nañ leen ko maye fekk yow li nga war a préparer ci moom yëpp dara motu ci amaana benn rek benn rek jéemoo ko ci xale boobu tey danga koy maye tey bu subaa mu ñibbisiwaat ndax jikko yi tax mu war a toog ci sëyam nekku ci jikko yi nga war a def ci moom ba tax mu mën a toog gérer affronter ndax nee naa lu benn fan lu ñaari fan waaye it lu metti la hmm. dund boo xam ne yow xamoo àpp bi kañ la hmm. kon kooku dafay jaadu mu am jikko bu baax jikko bu rafet boo xam ne bu demee ak lu mu fa mënti fekk dina fa toog affronté lool mm-hmm. dina fa toog muñ fa dina fa toog jànkonteeg ak lu mënti ñëwit dafay toog dékku ko ndax am na yar bu waajuram def ci moom mm-hmm. yar boobu nag bu ratee xale bi bu demee yàgg-yàgg dafay siwaat wala bu demee la muy sekk ak boroom këram dara du ci baax mm-hmm. ndax xamul boroom kër nan nga koy téye xamul ndax boroom kër sang nga ko war a def wala danga ko war a def jaam boo fóotee sax ne ko après nga weral ma yëre yi hmm. amaana looy def lu nekk da nga koy woo pour mu ñëw jàpp ci hmm. donte ñoom ñu ñu war a jàppale lañ hmm. mais warul demee noonu warul tax nga def ko moroom xale boobu dina dund ba màgg am ay njaboot mais du xam njariñu njaboot ndax dafay fekk jiwu ko woon boroom këram kon loolu lu am solo lu ñu war a tàggat ci njaboot gi la seex sëriñ ñuy wax ci benn mbir moo xamante ne damay naan chaque jour góor ñi dañ koy jàmbat muy setu jigéen mu nekk loo xam ne nag luñ sàgganee la surtout ci yar gi mm-hmm. war a yar xale rek mu set mm-hmm. ñun jigéen ñi dañoo sàgganee loolu amaana fii la ñuy tëdd lu def ci kër gi rek baax na en na na nekk di côté côté rek mm-hmm. mais war nga xool ndax li muy def moom set na wala setul li muy def ndax baax na wala baaxul mais déedéet na def rek après day dem ba dem sëyi nag li doon def moom dina xam ne lii baaxul mais lii la tàmm lii la tàmm di ko liggéeyee nan lay def ba bàyyi ko la ga hmm. nekk ak sa borom kër nag gàddu ak xam hmm. boo fóotee du set hmm. boo balee du set amaana yaa ngi koy rey ak yenn mbir yoo xamante ne te moom du la ko mën a wax loolu àq la kon waajur yi nañuy yaraat njaboot gi surtout ci wàllu set loo yar yar yar defaral jikko yi defaral lépp mais set moom insisté bu baax a baax a baax ndax mbir la moo xamante ne waajur bu nekk war na ko veillé ci doomam ndax dara gënul metti nga dem sëy ñu wàññi la ndax ñàkk set Hmm. dara gënul métti nga nekk ak sa borom kër di ko lor ndax ñàkk a set. Hmm. kon loolu mbir mu métti lañu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax te côté boobu jigéen ñi ñun jigéen ñi dañ cee sàggan lool sax lool hmm. lool lool. dañ cee sàggan ba mu jéggi dayoo. te ak boobu nga xam ne yaa ngi koy amee sa borom kër. bu la ko jéggalul bul xam lan la lay jural. nee naa bu fekkente ne da nekk ci sëy te fekk ba nga ciy dugg kenn préparé wu woon. maanaam kenn jàngalu la nan la ñuy sëyee nan nga war a gérer sa boroom kër nan nga war a toppatooyee sa waa kër jëkkër demal nga waat ko même bu fekkente ne da ngay yàq sëy bi mais utal koo xamante ne du doon yaay du doon bay ku lay jege lay doon koo xam ne foo ko soxlaa mu nekk sa wet mu jàngal la naka la ñuy sëyee ndax mbir la moo xam ne dañ lay wax ne la sa àjjana mën na cee leer tey boo jaamoo sa boroom kër ni boo jaamoo sa boroom ni la waree def say julli juróom lépp santaane borom bi wa sa sa boroom kër gërëm la nga dugg àjjana kon loolu yaakaar naa nit ki bu ko xamee war na cee góorgóorlu kéemtalaay kàttanam hmm. war na cee daw ba sonn loolu nag damay wax ne bu fekkente ne réeree na la demal nga gëstu demal ñu jàngal la ndax nee naa ñu mën a jàngale ci wàllum néegu say bari na lool hmm. mais lenn moo des mooy ñi nga xam ne ñoo war a dem jàngi ñoo amee rëy hmm. ñoo amee rëy damaa war a jug dem jàngi ah sama boroom kër am na lum jàmbat ci man naa dem xool diw wala naa dem xool groupe nangam nan la ñuy def jàngalante ba lii nii sama borom kër di jooy mu mën a saafarawu mais déedéet da ngay toog fi nga toog di diiranteeg moom mbagg amaana sax nga ne lii xamoon na ko ci man waaye nii la ma bëggee woon pourtant mën na laa bëggee nii mais nga dem ba ca biir soppeeku am moo xam ne lii muy dund ak yow lu koy déranger la lu koy gêner la te bokk na ci li nga xam ne dafay yàq bëggeel dafay sorale ñaar ñi nga xamante ne dañoo bëggante mm. muy gaañ ci loolu rek dafay hmm. moytu hmm. dafay commencé di moytu hmm. moytu boobu nag mooy indi yàqu-yàqu yu bari ci say ndax waxtaan dootul amati yow jigéen sa xel mu ngi commencé daw sama borom kër dafay doxaan même bu fekkente ne doxaanul sax mais am na ci jigéen yoo xam ne tey bu leen seen borom kër ne leen ah yow sa sa yëre bi ko solee nangam liñ lay tontu dafay tax yow dootoo sax war a ci wax da ngay noppi di ko seetaan noppi boobu nag mooy dem ba indi ñàkk communication borom kër gi dootul sa warate wax yow ko jigéen ki bu waxul nga ne nag mu ngay doxaan mm-hmm. dafa bari jikko dafa nàngam fekk mm-hmm. feebar bi ci yow la mm-hmm. kon ñun jigéen ñi ñoo war a dem faju ñoo war a dem jàngiwaat lan mooy sëy nee naa ñu bari ñu ngi nekk ci néeg nekk ci kër di sëy mais sëy ñu dañuy sëyantu tey naka ngay nekkee en tant que jigéen nga ne damay tëdd ba dix heures laay mën a jug pour mën a def sama liggéey lay mëna juk pour gérer sama borom kër borom kër gogou kon bu dé dafa war xey xëy fajar naka nga xëy toppatoowee pour nga mëna juk il faut nga tëdd ba 9 h tay sa goro bu répé sax bala sa buntu koŋ-koŋ pour rek nga mëna juk amna yo xamné mu ngi ci kër gi yu sew sew nga war ko défar nga alu nan lan motax mu may fëgg lan motax mu may nangam dafa oser dafa nangam ba sey bobu tass yalla nañ ci yalla musa kon yar bi fay am solo lol ñu wat ci ñun wajuri mm-hmm. surtout ñun jigéen ñu delluwaat ndax ñu ñooy ñun des ak njaboot yi ci biir kër yi ñun ñoo war a des ak njaboot yi ci biir kër yi xool ci li ñuy dox suba ba ngoon jot lan la xool ci li ñuy dox ak li ñuy wax ba xam lan la bu fekkente ne lu jaarul yoon la jubbantil nee naa doon ki ko bëgg mooy ki nga xam ne mu ngi yar jubbantil li nga wax du waroo koo wax kii sa mag la waroo ko wax nangam ak nangam kii sa yaay la waroo ko wax nangam ak nangam mu xam loolu mu demee ba màgg ku gis ci mbedd mi dina xam ne kii sama kilifa tey nit ñemewul dox ci mbedd ba romb xale muy def naka sudul noonu nga tere ko mm. amaana bu la saagaa wala bu la jànnee dootoo ko dooleeti mm. kon ñun waajur yi nañu yar njaboot yi bu baax a baax xam ne bu baaxee mm. suñu société bi baax na bu fekkente ne safaanoo nañ tamit suñu société bi yàqu na te société bu yàqu yàlla nañ ci borom bi subhaanahu wa taala musal macha allah kon euh, li nga mujjee ni mooy bari da nga koo da nga koo delloo ci éducation xale yi mm-hmm. kon daanaka loolu day dellu ci waajur yi ñu gis ne bu njëkkaan ah, yar xale dëgg la xale buñ ko yaree bam bam ak benn as sax nit ki daan am douze ans sëyi waaye du tee mu xam ñi nga xamante ni moom la nag ko jàngal togg jàngal ko fóot mhm. jàngal ko set waaye jàngal ko ni ñuy tontoo mhm. gis na gis na na léegi sayu sayu tas yi bari na bokk na ci li ko gën a bari <laughs> mooy tax yi jigéen ñi léeg-léeg bari nañ ñoo xam ne mënu ñoo togg mhm. mënu ñoo fóot mhm. mënu ñoo tontu tamit tontu lu neex nga mhm. wax ci la lu am solo mooy léeg-léeg nit ki man naa mën naa ñàkk sax am waajur yu ko yar waaye nag wala fi dañuy wax ne ku màgg war ngaa mën a yar sa bopp te comme ni nga ko waxee ne jamono ji comme yéen ngi macha allah ak seen numéro yu bari yéen ñi ubbi ay groupe di defal formation jigéen ñi pour ñu gën a xam ne ñu nekk seen sëy ndax mbirum sëy comme ni nga ko junjee rek dafa nekk loo xayante nii li tax mu jafe nekkul looy def tey nga xam ne dama mm-hmm. naan man de tey laa commencé bu déwénee mu jeex mm-hmm. waaye giir gu dund la giir gu dund la mooy loo looy def bu suba ne la di ko répété mm-hmm. beneen bi tamit ay way ay nit bu nekkee xam ne jafe-jafe du mën a ñàkk ndax ndegam sa waajur ngay amal jafe-jafe moo xam góor wala wu jigéen ah, boo sëyee feneen tamit noonu la mm-hmm. ndegam ko góor ki tamit waajuru wu jigéen lay amal jafe-jafe moom dam ba amee soxna tamit noonu la kon xam ne jafe-jafe mën ta ñàkk ni ko benn kilifa di waxee mu ne bu sëy doon ñàkk problème kon kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam këram ñàkk ko mm-hmm. waaye li ñu a wax xëy mooy ko a mm-hmm. ne ubbi leen ko tamit ak ñeneen muy nekk loo xamante ni luy former nit ñi la nga xam ne ka ci nekk bu xamul woon naa xam ndax ndeysaan maa ngi kay dégg benn mbokk di ko nettali benn jigéen di tas ab mhm. <laughs> mooy <laughs> subhanallah rek waa ji daa may gan mhm. jox ko ndeke jël daajal salaat ba waaw ci ca cin la mhm. moom tam ndeysaan bi ñu ko yàkkee mu xaw a kii subhanallah waaye xare yi tam ñu compréhensive la daan ko ah, lii de xam naa tàngoor yoo ko jàpp rek mu xaw a tooy waaye kii ko ci ndeysaan nga xam ne daanaka fekk lu mënul la loolu nag sàggante gu bon nan nga maanaam nan nga jàppale maam jaar noonu la mel parce que tamit suñu jigéen ñi dëgg la xam ne yenn handicapé yi war nañ daan ko man mhm. waaye ak fóot wax dëgg yàlla nag daawuñ ko tële mhm. xañ na mën nañoo am problème mu yar ci éducation xañ na ñàkk xam nañuy waxe wala yeneen ak yeneen mais lu jëm ci togg ak fóot moom lan nga jàpp ne moo tax ba ndëgën ni nit mën a ndem ba nekk mag te du ko man mhm. macha allah Cheikh Serigne des fois côté boobu man damay wax ne sàgganteefu waajur bu jigéen bi la mooy comme li may wax léegi rek bu fóotee nga xool ndax li mu fóot set na bu dee setul nga delloowaat ko hmm. bu toggee buy togg ñëwal nga toog ci wetam ndax nekkagul ko mën hmm. ñëwal nga toog ci wetam nii la ñuy toggee nii ngay def nii ngay def nii ngay def ba keroog muy sotti hmm. mais bu buñ xoolee léegi doom bi balaa nga naan dama koy yar rek fekk mat na sa yi nga ne naa ko préparé daal dafa yéex nga ne naa ko préparé ndax taawam yëpp def na ko ci jàngeekaay bi amaana bu wàccee nga ne am naa ci moom yërmande ba bale sax duma ko ko sant moom it mu am osé wu tëdd yow yaay génn bale moom mu ngi tëdd di la xool bu fekkente ne dem na ba toll ci yenn asi dee léegi nga dégg ci jigéen mu ne woon bëggaguma say léegi mais mu ngay caaxaan feneen foo xam ne weccat ba mu cay am yow la koy indil yow yaay ñemeetoo koo wax ne ko jugal nga bale ñemeetoo koo wax ne ko kaay nga toogu te xam nga ne toogu mën a ko ñeme ko woo ko wax loolu ndax yaakaar nga ne boo ko ko waxee lam la doon jox ci poosam mu dagg ko mm. boobu foofu it problème dafay daal di ñëw mm. ndax kooku dafay dem ba war a sëy di yaakaar ne bu ma sëyee noobul laay doon ndax dañ may utal jànk dañ may defal nangam mm. mu sëyeeg koo xam ne ndax li ñuy wax rek c'est sens la fu ko yàlla di tuddee kenn xamu mm-hmm. mën na la boole ku am mën na la boole ku ñàkk mm-hmm. mu boole laak koo xam ne it loxoom joteewul ginnaaw mm-hmm. bu boobaa problème dafay am ndax du la mën a jëlal jànk boo toggee kenn du ko lekk fóot doo ko ko defal amaana moom ku góor ki mooy fóotal boppam ndax lu mel noonu man gis naa ko mhm. góor goo xamante ne moom mooy fóotal boppam mhm. ndax xëy na soxnaam mënul fóot mhm. sa yére nag boo jambee baax na boo jambul baax na mais loolu loo war a jàngi la boo demee nag ba toolu ci jamono yooyu di dund loolu loo toogu ñu këppi ndax xam nañ ne baaxul dellul nga moo tax rëy boobu dañ ko war a dindi ci ñun dem naa ba war a am jëkkër wala dem naa ba am jëkkër du ma fi dekkaat naan damay jàngi toog Hmm. léegi togg boobu bu fekkente ne mënoo ko nooy def hmm. faaw nga dem jàngi ko waaw moom it jëkkër yi sant kan wala sàll dem il faut nga xam dañuy bëgg lekk faaw nga dem jàngiwaat togg hmm. ndax mënoo dëkk chaque jour ñu lay jox dépense xaalis boobu kenn foru ko buñ ko toggee ba dem jox ko mbaam yi amaana mbaam yi sax du mooyu ndax duñ ko bëgg a lekk kon da ngay delluwaat nga dem jàngi togg en tant que jigéen bala nga ut koo xamante ne ci sa wet daf lay jàngal ndax ñi jàngale togg bari nañ ci groupe yi mm-hmm. groupe boo dem léegi ñu ngi jàngale togg formation togg ndax xam mm-hmm. nañ ne lu ëpp ci jigéen ñi amuñu jot mm-hmm. lu ëpp ci jigéen ñi bu ñu xëyee ñu ngay jàngi wala ñu ngay dem seeti leneen loo xam ne ñu ngi koy def ñi nga xam ne nag dañ leen a boyal bu ñu ñu ngay tëdd ñooña nag nañu dellu dem jàngiwaat liggéey yaa xam fóot la nga manqué mën yaa xam passé nga manqué mën yaa xam togg nga manqué mën waaye bu ci manqué rek demal nga jàngi ko ndax yooyu noonu moo yore sëy tey pour nga toogu sa borom kër ne la li nga toogu neex na dafay fekk mu neex bu neexul mënu laa wax ne neex na pour nga fóot mu set tey amaana dara wala wala yére sax mën nga koo fóot boo paree romb nit xeetu ñaq ba ca nekkoon mu ngay xeeñ ba tey te pourtant naa nga koo fóot mais fóot bee setu kon nag dellu nga jàngiwaat fóot ko ba mu set ndax dafa am yoon di nga xayu di nga fóot première fóot deuxième wala nga fóot première def sa bàcc ñaari bàcc yu set boo weeree yére yi bana bañ am xet mhm. mais mënoo ñàkk mën ba pare nag ne duma dem jàngi loolu mënoo nekk mhm. kon jigéen bu fekkente ne dem nga ba war a mhm. dugg ci nekku sëy dama naan balaa nga cay dugg jàngal ba xam moom mooy lan comme ni nga ko waxee nekkul mbir moo xam ne da ngay dugg tey bu subaa nga génn wala da ngay dugg tey ne man kat dat bii laay am ci sëy bi àpp la boo xam ne borom bi subhaanahu wa moo xam kañ lay jeex comme nag yow xamoo kañ lay jeex fexeel boo xëyee def ca lu bees fexeel heure boo xëyee ci sëy bi mhm. yeesalaat ci loo xam ne dañ naan lii mosuñu ko cee gis loo xam ne dafay kontaan loo ki nga nekkal mhm. ndax nee naa sa borom kër bu kontaanee rek yow jàppal ne say mbir baax na mhm. bu fekkente ne kontaan na say njaboot yàlla mun na leen a barkeel ci kontaan bi nga xam ne sa borom kër kontaan na ko ci yow kon loolu du caaxaan du benn fan du ñaari fan looy dund la dund boo xam ne yàlla moo xam àpp bi kon rafetal ko te surtout jigéen da nga war a am dal am muñ gis nga boo amee dal Cheikh Serigne hmm. comme li nga wax léegi problème mënul ñàkk ci sëy hmm. mais bu fekkente ne am nga dal problème bi bu ñëwee rek di nga xam nan nga koy gérer hmm. ak lu mu ci tool nag tey sama borom kër dafa naqari deret dinaa toog déglu la nga wax àdduna bu ma paree ma jéggalu la xanaa bu ma la ko defee tey bu subaa doo waxaat waaye bu fekkente ne moom dafa ñëw ak naqari deretam bu waxee nga tontu problème dafay am amaana mu dóor la sax fekk tey dóor la sax fekk xol bu jeex moo ko yóbbee woon loolu Mm. kon nga noppi ànd ak dal ba mu wax li muy wax ba pare mm. bu fekkente ne loo war a leeral la bàyyi ko ba mu dal nit ki du chaque jour la xorom di tàng mm. léeg mu nekk ci période boo xamante ne mu ngi dund bànneex nga ne ko bis sàngam defoon nga erreur sàngam ndax li nga ma doon wax demeewul nii nii ak nii la woon waaye dal boobu nag moom lañ manqué kon yàlla nañu yàlla sàmmal suñu jikko yi rek incha allah ñu defaruwaat ñu wax mbokk mu ñu doon nettali mm-hmm. ma ne ba pare te yu bari yére yu weex la won hmm am dafa ñëw dag liñ ko pare yére yëpp daanu dafa demoon fóotaat ko mhm. maa ngi ko doon déglu wa fa ma jamono ji boko defoon ndeysaan <laughs> te xoolal moom li ko li ñuy seetaan sax ñola naan ka ah, xana da nga bëgg ray sa mhm. doom ji xoolal liko may loolu moy yar mhm. li ko may loolu moy yar ndax yaaji dafa ko ne pour lim fóot mo ñaka sedd mais pour na xol bi toj merci beaucoup tey ku demoon si say say tay ci kër nga fóot ba pare te nga fóotal ñëw ne li nga fóot dara weer setu ci dootoo ko fóotalati waaw hmm. ah. dootoo fóotalati ndax danga naan kii hmm. daf ma yeb hmm. fekk déedéet bu doon sa yaay toj na sa xol bi depuis boobu kon buñ demee buñ la nee buñ daggee liñ bi sax yow di nga foraat fóot te pourtant doo jàmbat de ndax dafa fekk ne yar bi def nañ ko ci yow comme moom ni ko dundee woon comme mom ni ko dundé won yar bu mm-hmm. metti biñ ko yar ba tax mu mm-hmm. fóot ba wër dag mm-hmm. dagg liñ bi yéré yi waddaat mu war a jëlaat fóotaat benn par ben premier deuxième xoola suñu jamono légui ñu bari ci ñun ben sombu la ñuy fóot yëre ah ñu ngi def man ma gam sax jigen ñet sombu ñent ñeent la ñuy def kon am na benn lañ ci def ak ñaar bari na ci ño xamné ben sombu la bu manam lolu lan moo tax léegi xañ na xeeti saabu yi dafa gëna sophistiqué yu jëkke wala légui wala dañuy wax ne yére yi moo dul tilim. wala yére yi moo dul tilim comme mu njëkk. ak lu mënti am see sëriñ. Hmm. jëf yi dañ ko war a jaarale ci yoon. beneen bi tamit li ma bëggoon laaj foofu yaa ngi koy wax léegi léegi xale yi ñàkk a yar gi ñàkk a laa bëgg a wax. Hmm. léegi lu temps bari dañ koy def ci daar yi. Hmm. léegi nag ñenn ñi dañuy wax ne yéen yor daara yi li ci ëpp da di gën a def ci xale yi xam-xam. waaye duñ leen yar waaw leen yar. rawatina buñ yar mooy duñ leen jàngal liggéey. waaw duñ leen jàngal te léeg-léeg nag. xale bu jigéen bi nekk say responsabilité. Mm-hmm. wala bu buy jàng si ci yow. da ko bu dee internat. Mm-hmm. mën ngaa fexe ba bu fe ndax juróom jër bu dee internat ngeen fexe ba bu dee ku ci yor internat masalan. Mm-hmm. jour yi nga xam ne jàngu leen ngeen di leen yebal ca waañ ma leen fóot loolu du leen ko pour liggéey loolu sonal leen mais da ngeen pour ëllëg wala ñi nga xam ne xañ na sax mën naa dañuy jàng di wàcc bu ñëwee ngeen mhm. leen def loolu wax dinañ ko defle pour liggéey loolu leen de mhm. mais nee def loolu añ ndax xañ mën naa am mhm. dafa xëy jàng si midi une heure mu wàcc wala fi la yenn bu nga def ci yow moo loolu leen ci jàpp naa bi nga may fekk ay internat lañ macha allah ñun noonu la doxee bu ñu xëyee Mm-hmm. xale yu internat bi ñooy defar liggéeyu kër gi mm-hmm. ñun ñëpp te ay xale lañ ay xale yu ndaw mm-hmm. sasuñu leen ko pour ñun dañoo bëgg noflaay mais pour ñu am ndax sama doom man mu ngi ci sama doomu rakk mu ngi ci ak yoo xamante ne ay internat lañ foofu sasuñu leen ko pour bëgg noflaay mais pour ñoom ñu xam ne jigéen dafa war a dafa war a sonn dafa war a liggéey ndax liggéey bi ngay liggéey foo mënti dem moo lay jariñ bu weekend jotee ñoom seen yére ñoom ñoo koy fóot tey bu ma duggee ci waañ damay tànn kenn ci ñoom ma ànd ak moom ci waañ bi fekk hmm. moom jël na daar sam ba pare ma ànd ak moom ci waañ bi hmm. wala bu fekkente ne sama rakk bi moom tamit mu ànd ak kenn ci waañ bi hmm. pour rek nga jàngaale booy ñibbi ñu xam ne kii yow ja yemoo rek ci jàng Xuraan kese sa li nga uti woon am nga lépp loo xam ne jigéen da koy am ci këram di nga mën jàng di nga mën toogu di nga mën fóot di nga mën liggéeyu kër macha allah ñun suñu daara loolu moo fa am ndax xale bi bu fekkente ne jàngal nga ko ba mokkal hmm. mu génn ñibbaale hmm. xolu waajur yu tàng mooy lan hmm. lu bari comme ni nga ko waxee ñu bari ci daara yi dañ koy jooy mooy ñàkk xale boobu dafay dem ba dootul tàmmati set ndax xamu li muy gis chaque mooy tilim li muy gis chaque jour mooy salte yëre yi muy sol sax bàyyiwul xel ndax tilim na wala tilimut yow mi mu nekkal nag yow yaa ko ci mën a soññ loolu léeg-léegi waajur yi dañ koy jooy sama doom ji dañ ñibbisi na waaye dafa laajaat defar fekk est-ce que trop tard ndax mm-hmm. temps bi nga xam ne def ko ci daara yëpp nekk na mag naka nga koy jubbanti waatee mm-hmm. dafay laaj yar bu métti métti waat mm-hmm. ndax yow mi nga xam ne yow lañ ko delloosi bi nga sonnaat pour jikkoom yi nga xam ne moom laa am mu deñ kon loolu it ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla sas ñu nekk ci daara yi war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax coono la man coono laa koy tuddee nga am xam-xam xam-xam boo xam ne amaana boo ko waxul kenn du ko gis mm-hmm. mën na feeñ ci jëmm mais boo ko waxul kenn du xam ne yow am nga xam-xam mm-hmm. mais set gi nga xam ne yaa ngi koy set di ko bàyyi sa xel bo di nga bàyyi sa bopp xel mm-hmm. loolu ku jàkkaarloog yow du koy gis kon loolu it lu ñu war a veiller la bu baax a baax ci xale ya même ndongo yi nga xam ne dañuy jàng di wàcc ki ci la bokk ñoom ñii ñëpp dañ leen di taxawu ci defar leen ndax xam nañ ne ñun li ñu nekk ñun moo ëpp li ñu nekk seeni waajur mhm. te am na ci ñoo xam ne pour ñun ñu wax ñu dégg moo gën a yomb pour seen waajur yi wax ñu mhm. dégg mhm. bu boobaa ñoom tamit dañ leen di am yoo xam ne dañ leen koy sas si daara ji def leen lii def leen lii def leen lii amaana bu ñu waree am weekend sax nga ne diw yow suba defoo dara mu ne la damay fóot nga ne ko kon fóotal waaye bu fekkente ne fóotoo sa tante diw wala sa jabaru mag diw jëlal ko ayam dugal ko ci waañ bu demee marché ba ñëw toggal ko te dafay def loolu Mm-hmm. kon bul jàpp ne yëf yi man sama kër rek la war a yem ci daara ji rek la war a yem mm-hmm. mais da nga war a yar ba mu continuer dem seen kër yóbbaale fa yar boobu mm-hmm. bu yàggul dara am na sam benn sam benn rakk boo xam ne wujju peccor goo moom mooy wax ci lu mel noonu diw de léegi dafa changé ndax bu bu xëyee kenn dafay wax ne bàyyil ma togg loolu mu daara jim jóge la amaana buñ ko deful woon ci moom du ko def ndax fa mu nekk amuñu jot boobu de yaayam bu xëyee day dem liggéey nekkal amaana amuñu fit wax ne ko kay nga defal ñu nangam ndax seen seen jabaru mag la mm, mm. légui nak yow mi nga xamne yow la ëpp li muy nekkal mm. li nga wara def ci mom moy baax li nga am sa doole la sa xel la joxe ko ta yalla tax ndax li ngay joxe du la dara tay loko ko defal bu nekk njëriñ li bo sëyee sa yop sa bop nga sa bop lay delu wat ko deful tamit ciono bi buy ñew ci sa kaw lay delu motax des fois ngay gis ngay sey ci kër goro ba ne ay domam bu len ko defal dara Mm-hmm. bu leen ko defal dara moom mooy sëy ci kër gi mm-hmm. bàyyi leen ko luy coono mu daj ko ci kër gi mm-hmm. coono boobu dëgg la yaa ngi koy daj mais ñoom ku ci dem da ngay si ndax la nga war mën mënoo ko kon loolu tamit yaay yi ñu bàyyi ko xel bu baax kii ñëw sëy si du mbaam ke ñëw sëy si yaay moo ko jur ak papa waaye bëgg gi ñu ko bëgg tax na ñu yëkkati ko teg ko ci seeni loxo kon bëggale leen ko ko amaana raxas bi ko xale bi di defal wala bale bi mu koy defal wàññiwu ko dara li may wax sànq njariñam la moom bu sëy jee loolu lay yóbbaale. Mhm. Mhm. Mhm. waaw kon loolu am solo la xanaa ñu bëggoon laaj laal tuuti rek ci beneen point wala jàpp nga ne point boobu baax na. ban la. waaw ñu bëggoon a jàll ci fan yi dañoo gas ne njabarante gi. bari na lool ci. way dencante yi te njabar njabar mom lu bon la dëgg la nag kenn du ci sukkandiku mhm. kenn du ko fajo sax kum dali tamit doko doko tey njabar mhm. waaye njabar mom comme ni ko ni nga xamé borom subhanahu wa taala saxal la ci déeréem bi wane ni njabar mom la am la mhm. waaye gis nañu dal ñu bari ci jigeen ni xañ lan wara def manam waroon nak góorgóorlu ci togg gu neex mm-hmm. jikko yu rafet tontu lu baax mm-hmm. mën a liggéey mën a nangam ñu jàpp ne daal lu lépp dañ koy wiire ci njabar ga mm-hmm. loolu xaw naa la ko toot li loolu moom ñooñu moom loolu leen di dénk macha allah Cheikh Sëriñ xanaa di leen dénk rek ñu ragal yàlla xam ne àdduna yemul ci benn fan ki nga xam ne dafa jóg sol dàllam pour dem def la lu bon mm. loolu muy def noonu yàlla la neex moo tax mu dal la mm. bu ko neexoon dina def ba sonn. Mhm. ma joxe ci benn misaal sama yaay fu ñu dëkkoon géejawaay mhm. amoon nañ fa benn suñu benn dëkkandoo boo xam ne heure boo ñëwaan da nga koy fekk muy saafara sama armoire yaay ndax mhm. sama yaay xamul woon tëj mais heure boo ñëwee da nga koy fekk muy wis te lu doon bis mosu koo jàpp kon dafay dellu ne ci ndogalu borom bi subhaanahu wa taala lay dellu bu fekkente ne jàpp na la rek yàlla dafa namoon ci yow feebar boobu waaye fan la war a jaar ci ki nga xam ne moo sol daalam dem dafa la njibar mhm. moom fayam lan la après mhm. loolu dafay dajeeg borom bi subhaanahu wa taala mu àtteleen mhm. ndax jëf na jëf joo xam ne amaana génn na sax ci li nga xam ne moom mooy diine ndax ku ne xam na li ñu wax ci njabar kon sol sa daala di dem di defi sa moroomu jigéen loo xam ne naka su dul noonu la ndax lan góor jaru ko benn góor boo xam ne war na la jaral lu mel noonu looy def bu nekk rek na dëppoog li nga xam ne moom ngay dund muy sëy bi mm-hmm. li may wax barki démb sama benn jigéen mm-hmm. sëy amul benn benn yoon boo xam ne sëriñ mën na ci dara mm-hmm. lii tax nga téye sa boroom kër yow yaa koy liggéey ci biir kër gi yow yaay fexe ba sa borom kër bëgg la te du la yemale kenn bu ne waaw nangul waaw googu waaye bu ne déedéet it nangul ne déedéet la bu la teree bu laajte sax lan moo tax ñu tere ma ndax moom mooy ki la war a tere ginnaaw jóge nga sa loxo papa. Hmm. moom mooy sa kilifa léegi. Hmm. te bu la sa papa teree amaana doo ko laaj lu tax papa nga tere ma. Hmm. mais sa borom kër bu la teree nga ne ko lan moo tax nga maa tere. te pourtant sa kilifa la boo ko nangulee yooyu boo toggee mu neex nga tegal ko bu nee déet balaa muy eggal déet boobu na ko dagg. na fekk na yow déet boobu pare nga ko ba pare. bu nee tissoo balaa muy wax alhamdulilah yow wax ko yarhamkallah jox ko baatam ba nga xam ne kii. xam na ne am na fu ma ko teg hmm. kooku kan la lay yemaleen hmm. ay yëreem du tilim ndax fu ma ko sentiree fóot naa ko tegal ko hmm. du ma ko xaar ci mu ne ma xiif naa ndax balaa muy xiif fekk lekk gi teg na du ma xaar ci ci moom wax ju neex ndax dañ ne la yow jigéen dalluwaay nga ci sa biir kër sa boroom kër ci yow la war a dalloo kon dalluwaay boobu dafa war a nooy fexeel ba looy wax bu nekk na neex looy wax bu nekk na nooy bu dara dëgër ci yow boo xëyee di toppatoo sa borom kër suba ba ngoon jot ci ay service am laay daw hmm. alalam laa koy sàmmal hmm. waaye li mu bëgg ci laa nekk suba ba ngoon jot kooku du la hmm. yemale kenn waaye bu fekkente ne yow li la li la war ci kër gi mataloo ci dara set ga ca war amoo ko wax ju neex mënoo ko maanaam buy wax baat balaa muy daaneel nga tontu ko la koy tontu mu dee dugg ci suuf si moo koy gënal te pourtant jàmm sax la doon ut mais yow tàngoor bi nga xam ne mu ngi ci yow ñàkk dal bi nga xam ne am nga ko tax na boo koy tontu du ko tay doo ko tay hmm. kooku nag mënul nekk ki nga xamante ne moom dafa dégg ndigal mënul nekk ki nga xamante ne dafa xam kan mooy borom këram surtout loolu tontu sëriñ hmm. ndax bari na ci jigéen ñi ñoo xam ne xamuñu seen borom kër hmm. mën nañoo nekk ak yow ñi di dund di dem di ñëw mais xamuñu la tey boo ñëwee ak mer dañuy wax ne dangaa bari jikko te pourtant am na loola naqari loo xam ne mënoo koo wax léegi nag kii nga xam ne moom fexe na mu naxtaan la ba xam yow yaay kan hmm. loo sonn bu ne mu nekk ca kooku munoo ko yemaleeg kooku munoo ko yemaleeg kenn te kee it munut a nekk kii kon faa mu uti pexe hmm. waaye loolu muy uti noonu du pexe ndax musiba dong la koy jural hmm. kon jigéen ñi dara jaru fi muy ñaaw dañuy wax ne see euh, wujju ay seex la yoo xam ne dañoo réeroo woon yàlla boole leen ci benn borom kër kon loolu dafa war a rafet dafa war a neex jël sa wujju uuf am naa ci ay exemple yoo xamante ne mhm. tey boo demee fenn benn ci si kër oustaz yi fii sama mag fu muy sey mhm. ñetteel ba mook ñaareel ba mhm. dañoo meloon comme ñu bokk ndey ak benn néeg bu ñu doon fanaan ñoo ko doon bokk bu ñaareel bi feebaree dañuy gis ñetteel bi day ñëw toog di ko raay mu wóor la ne kii dafa yërëm wujjam te jàppewu ko sax dama naan jàppewu ko sax muy wujju mag la ko jàppee kon nekk daal bu rafetee moo gën bu rafetee rek amaana njabarante mën na cee ñàkk Mhm. Mhm. kon daal mën nga wax ne léeg-léeg nit ki mën nay soxna si man nay jël dara di ko def fekk am na lu ko yàlla borom subhaanahu wa taala moo ñaale mhm. loola mën na ci am lu mu bëgg non seulement lam amoon bàkkaar fee du ko am waaye nag yàlla mën na ko ci bindal tiyaaba ñu wax tamit lu am solo mooy jigéen daa war a xam borom këram ah est-ce que jigéen mën naa ñàkk xam borom këram ah, man nga jàpp na moom. dafa amul jotu borom këram. Hmm. kon da jàpp nga na daal ñàkk jot gi mooy tax doo ko xam ñàkk jot gi moo tax doo ko xam ndax ki nga nekkal même bu dul sa borom kër hmm. ki nga nekkal bu fekkente ne am nga jotam rek yaa ngi koy bàyyi xel hmm. yaa ngi bàyyi xel lu mu bëgg yaa ngi bàyyi xel lu muy bañ tey doom bu ndaw bi nga yore bu fekkente ne yaa ngi bàyyi xel ay bëgg-bëggam doo xam moom mooy kat léegi sa boroom kër nag bu fekkente ne yow doo def lu dul ne dafay soxla rek woo nga ñëw jox ko dafay soxla rek wala nga ñëw jox ko kañ ngay xam moom mooy kan hmm. amaana waxtaan bi war a am seen diggante amul hmm. tey bu génnoon ci mbedd bi ñu ne ko sa soxla moo def nangam wala yow yow mi jigéen nga génn hmm. ñu ne sa borom kër moo def nangam doo ko weddi ndax xamoo ko doo ko weddi ndax xamoo ko te loolu problème lay lay indi léegi nag bu fekkente ne yaa ngi bàyyi xel ki nga nekkal période bi kat sonn na naa ko bàyyi mu dallu amaana sax naa ko defaral ko yaramam defaral ko yenn ci ay mbir hmm. mu mën a tëdd dallu kooku hmm. yaa ngi koy bàyyi xel hmm. ki nga xamante ne toog nga ba mu yàgg nga indi lekk ne ko xam naane war ngaa xiif yaa ngi koy bàyyi xel tey kooku problème bu mu am ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax mën nga ko dabb ci moom mais problème bu mu am moom dootul xalaatati kenn ndax yow xam na ne ku ko jege nga xam nga ne fu toolu toll yow yaa ngi koy bàyyi xel mais bu fekkente ne bàyyi xel wi amul rek kon damay wax ne xamante bi du am tey imagineel nga nekk ak sa boroom kër ci ñàkk a bàyyi xel bi nga nekk ak sa boroom kër mu feebar hmm. te doo ko ne sax ndax tane nga hmm. jigéen ñi dañ koy def hmm. ni ko góor ñi di defee noonu la ko jigéen ñi di defee nekk ak sa boroom kër mu feebar nga xëy doo ko laaj sax ndax tane nga kon toppatoo woo ko bàyyi woo ko xel boo ko bàyyee xel di nga xam ndax tane na wala tanewul loolu ay mbir la yu garaaw yoo xamante ne dafay nekk ci sëy té lo xamante ne dama nan jigen bi lolou du du devoiram ndax borom kër gi dang ko wara japp comme doom mm-hmm. yow yow soxna mm-hmm. da nga wara def sa borom kër comme sa doom ni ngay sonné ci sa doom nab nabé waxtaan neexal bu méré amana sax do nek si jamu lu dul ne sama dom gi dafa fiix wala dafa firi mm-hmm. nonu boko mi rek sa borom kër problème du am daan xam ñu da jox kaddi ngay tëjee rek ñu yëkkati jotaay bi insha allah kaddu bu ñu tejé jotaay bi ñu yëkkati jotaay bi. incha allah. Hmm. xam naa rek damay dénk sama bopp di ko dénk sama mbokk jigéen ñëpp. Hmm. li ma leen di dénk mooy muñ. Hmm. ndax comme ni ma ko waxee boobu ba léegi sëy bu benn fan du ñaari fan. sëy lo mbir la moo xamante ne danga koy dund ba yàlla moo xam dat bi mu jeex kon li la war ci loolu mooy muñ ak rafetal góorgóorlu surtout ci ki nga nekkal sa kéemtalaay kàttan góorgóorlu ko ci sa borom kër nee naa àdduna ki def lépp ndax kenn amul lépp hmm. comme amoo lépp mënoo lépp mais defal ba fi nga xam ne foofu nga mën a yem li ñuy bañ rek mooy jigéen joo xam ne dafa sàgganee boroom këram hmm. dafa sàgganee boroom këram ba boroom këram xëy bëgg a indi keneen nga ne ko du fi daal hmm. bari na jigéen ñu koy def du fi daal googu moo lay poussé ci nga dem ci sëriñ naa ko njubar ndax du takk keneen ba amaana sax moom boroom kër gi nga xam ne moom ngay fiire amaana sax nga joxe ci bakkanam yàlla ci yàlla musal amaana ki nga xam ne moom moo war a ñëw yaa ngi koy préparé ay mbir yoo xam ne bu ñëwee du toog ci biir kër gi hmm. yàlla ñu ci yàlla musal dama ne jéeg bu fekkente ne jéeg bi ngay woote dafa nekk ci yow hmm. ñëw war nga koo mën a uuf hmm. bépp jigéen buñ la indil xalaat ndax daf may sotti acide bu fekkente ne da nga nekk ci sa jikko amaana acide boobu sax du la ko sotti même bu fekkente ne préparé woon na ko amaana sax du la ko sotti mais bu fekkente ne yow yaa ngi préparé bu ñëwee dinaa toog acide ba mu ñor ma sotti ko ko Hmm. dinaa toog xeme ba mu ñor ma sotti ko ko moom bu ñëwee mu jiitu ci loolu coow li jeex hmm. kon lii war rek mooy ñu rafetal rafetal nekkin yi rafetal dëkk yi yaraat njaboot yi ndax jikko yi yàqu na ba egg ci lool yàlla nañ ci yàlla musal hmm. kon Cheikh Serigne ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal borom bi subhaanahu wa mu fay la yiw coono yi nga xam ne yaa ngi ko ciy daj yëpp macha allah yàlla na ko borom bi subhaanahu wa taala teggi te def ko mu nekk lu barke tamit incha allah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu xam naa kon ñu yëkkati fii jotaay bi incha allah danañ amaat yenn jotaay xam naa yooyu sax xañ na en kii lañ koy def en live lañ koy def incha mhm. salaam.